xoolal ñii waaw waaw def leen lu leen neex eh, waay waay Ibou af waay waay waay Ibou eh daase waay daase bilaay ñu am seen fay maa ngi sant sama yaay bu maa ngi sama yaay sant sama baay mbooloo mi nii dañ ma topp di mbabat maa ñëw ba léegi dañoo gore yow foo jógee maa ngi jóge ba yëmbal. bu yëmbal. danse bu yëmbal ma ree. koy bëreel. maa ngi bëree Petit Lo yàlla may ma ndam nag. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama quatrième laa moom. ñaata victoire. deux victoire dañuy defar. Talla Ndiaye xool bagage yi Pafton laay gis Pafton a ngoongu tëdd ca àll bala am lii ay nen leket bi mooy laytan leket bu ndaw ay laytan laa ilaaha illallaah omelette tey ah fii ku fi ñëw di nga am omelette ñaari nen a ngi ñaar a ngi lii moom omelette rek def sa pain nen yi lu lay fàttali Babacar waaye omelette am na leneen lu may fàttali. mayonnaise. am na combat bu mag bu ma gisoon ay nen. eh wax ma ko. ah Babacar xam nga ko. Balla Gaye Modou Lo wala. ah quoi jàpp nga loolu may wax noonu. ay eh, la la nen yi Modou Lo ay nen yaa. nen ya rëy na Ibou Laye ko doon toj. ci añ di nga ci reer di nga ci ndéy. Eh, gis. waa doy waar ngi. taala kii ma andi Balla Gaye de muy wulli doo wax. wulli nee na du wax tey. wulli caaxaanul la Talla Ndiaye Big Pato mbaa xam nga ne wulli caaxaanu laa ilaaha illallaah wulli tay day lamb de Talla lamb pire kii mu àndal mooy ànd Balla Gaye 2 wulli fawul faluwul tay ni ma la ko waxee woon wenn fee mu bëri la am yal na yàlla ànd ak ñun na ko waxee woon rek euh, yàlla suñ borom dogal na nii nit kenn lu ko xeebal bisam bu ñu yàlla booleek ñaneen ak ñaneen ak ñaneen à à travers Aziz dañ ciy jàpp yal na la yàlla may ndam yàlla na la yàlla may ndam yàlla la yàlla may ndam ci barke Nabil Moustapha am nañ ci yaakaar am nañ ci yàqin yàlla nag mooy dogal la alxuraan waxaat rek ca laay dellu faalu li maa yurid yàlla lu ko soob dina ko def mais yal yàlla ànd ak ñun te gëm naa ne ñun la yàllay àndal dalal nga tey bu arbitre soufflé day ñëw. mais bu ñëwee tegal der parce que xamul bëree tey rek moo la war loolu rek laa lay digal wasalaam. sëñ bi ziar nañ maa ngi lay delloo ziar ba wax. tur bi nan la. Masila Diop Masila Diop. ma gis la ngay ànd ak Balla Gaye di ànd ak waa kër Falaye Balde tey nga ànd ak Wouly. waa tey waa Falaye ak waa kër Balla Gaye benn lañ kii Aziz Ndiaye moo tax ma jàpp ko Aziz Ndiaye moo tax ma jàpp ko looloo waral tax. ma ñëw pour jàppale ko ci bisam parce que nit kenn du ko xeebal bisam bu may ànd ak Balla Gaye daf may escorter fu ma jëm kon ak lu mën xew rek naa ñëw ànd ak moom loolu mooy mooy wàllu góor. mooy wàllu waaw loolu moom ma andi. am nga confiance si moom mystiquement. la ma waxante Balla Gaye laay bañ a wax rek bëgguma bëgguma jiitu yàlla ci jëfam bëgguma jiitu yàlla ci jëfam. ndax yàlla kenn du ko jiitu jëfam mais pour mystique bi moom lépp loo nga xam ne lu ñu ci war a def la luñ defal Balla Gaye defal lañ ko ko am nañ ci ndam am nañ yaakaar bu wax dina am ndam tey yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla waaw. tey daal tey daal daa mel waa kër waa kër Baye Alioune ko ngem. waaw waaw loolu am na. maa ngi seen xalil waa wulli tey de waa kër Balla Gaye 2 waa kër Baye Aziz. ñëpp la jàppale tey daa mel ni. waaw waaw sant yàlla bu baax di ñaan yàlla tey naan man ma am ndam combat bi laay bëre parce que Babacar boo amee combat Sénégal gëpp la jàppale day ñaanal li nga war mooy nga fonk combat bi tey na yàlla ànd ak man fii ma am ndam. daal yàlla dina ah? di nga ko joxu turandoo yaa ko waxoon. bu bu bu soobee bi yàlla jërëjëf. xoolal affaire yi ñuy dàq de. gaa yaa ngi ñuy dàq dañuy toog les ay pot poti taalibe supporteru Saal Bawol anañu waa kër Saal Bawol a ngi nee Talla Ndiaye ee eh, Saal Bawol ak waa këram waa Rëbës ñu ngi noonu waay wuli waay yee wuli wuli waat bu amaa ruubiidin suba duule albacere wii duus duus duus duus duus duus wallaay duus duus wax leen ko wii bu amaa ruubiidin suba duule albacere wii duus duus kin kin kin kin maa la xëy dama jële mi ci bay sa xayal gala bay moo

Chef Pato Chef Pato Cour ee eh, eh, koppati Talla laa ilaaha ee police laa ilaaha illallah Pato xool police yi police yi ñëw nañu xool police yi niñ taxawee respecte ordre. tey day am problème eh, ku am problème. xool ma police yi xoolal ma police yi eh chef John Sina sa mbokk yaa ngi Ablaye Ngom sama goro sa mbokk yaa ngi. wàcc nañu xool tribune ba xoolal tribune ba waa police école police eh. lieutenant Henri Ciss sa baa ngi waaye police yi waaye seen déguisement yee rafet maa fonk police réew mi man maa naw waa man laa ilaha illallah police a ngi nii ah police a yor cumukaay yi tey tey police ngay cumukaay lamb ji mbaa yëngal fi tey wóor na mosuma xam ne police ngay cumukaay eh, pig bato la mu ñëwee garaaw na ah Babacar lamb ji dina doy waar tey doy doy waar lamb jamay kee ji ramas Babacar ah man de sama ramas am naa leet naa si sama xarit la commissaire boobu sama nijaay la waaw waaw kon de buñ la ramasee nga ñëw nga ñëw génn si ma Babacar ku ma ramas di ma bàyyi waaw waaw ee eh, way police waay déet lay ñam yee dañ lay daan ngaraaf daan na ko jël bu rëy na doomi Sadio Ndiaye simb kat wallaay daan na ko jël bu rëy jël waaw Sadio yàgg naa simb Pape Ngom ca ginnaaw raay ndaysaan yàgg nañoo simb dëgg la waaw loolo am taalibe yi dañoo sopp. jërëjëf nga am doom buy bëre. waaw mooy man maa ngi nii. loo bokk ak Modou Lo. sama rax papa la. rax papa la sama. koy bëreel. daanaka laa bëreel bu yëmbal. bi ma sa ñaata combat. bi mooy sa premier combat. di ñaan yàlla ma yàlla may ndam. yaa ngi Modou ko dàq bëre. ah maa ko dàq bëre. yaa dàq bëre sa papa. fuuf sax. sa papa maa ko dàq bëre fuuf. waaw kon ci kanam lay leer. waaw mooy loolu dina leer incha allah. a ngi nii. béjjën bu ñu sam. akum soow. Talla Ndiaye lu ne ngay gis li xanaa am tuur la boog léegi léegi la la xoolal leket ga xoolal leket ga yee Talla lu doy la police ma mu yëngu ah maam maam maam la fecc tey nag maam la fecc ah doy na waar doy na waar bëre leen ci géew bi ay du ko mën a wër loxo droitam bi ko teree dem dégguma ñemewul ay dóor ah daa war a ñemey dóor ku bëgg akara ñeme kaani dinañ la wër tës la wër ca waaye dañ lay daan lii lan la nii mbaa doo miir wër ndombo wër ndombo waaye ca booy jara dañ lay buddi booy jara ca ndeela daan daan na la waaw lii jaru kon ko ñàkk na combat ñàkk na 15 pour cent xool ko fa mu jaaxaan jógal yow kay jógal rek booy jara jógal rek bekk mu neex bëre mu neex duma mu neex daal mu neex si kàddu Ndoye Ndiokh waay Thiaroye. mais lu nekk ci bët yi nii. lépp yaa ma gën a xam. ah tus nga la. ah illallah. waa mbër. mbër lii lan la. waa mbër nekkee lii rek. bëgg daan sa waay rek. booy bëreel. musique 2. barke alxuraan du ma daan rek incha allah. bii mooy sa ñaata combat. premier combat. premier victoire incha allah. ban écrit. Cheikh Maba. ay ndaanaan a fa nekk. bawal dañuy bëre barki alxuraan bi la dañuy bëre soowu lan Ndiassane laa jógee nekk Grand Dakar li ma bëri caaxaan waruma barki alxuraan kii dama koy duma daan ko incha allah waaye booy Jóob laalal nañ ko laalal nañ ko ay ñoomin micro ay ñoomin feuille balaas ak coton ngir tuñ ma lamb cay mbër Talla Ndiaye bàyyi ma muy dugg daw na jël ko eh Boy Diop wër na ko ndombo waaye yéen Boy Diop buddi na ko Mamadou Ndiaye foo jëm daa bëgg a daw dafa bëgg a daw Boy Diop buddi na la dóor la ci suuf waaw Talla Ndiaye daf ma dafa dafa. waaye dañ ko wax waay mu ma naan dafay dóor man du ma ragal parce que Seydina Mohamed ba ma laa dëkk. yow tu foo toll. man premier année transport logistique ISCOM laa nekk. waaw je remercie tout le monde. man maay mbiru élèves yi je suis le leader des élèves et waaw foo noo tudd boo Diop laa tudd jóge fan Malika laa Mbabas Mbabas école de Doubales di sant ñoom volcan yi ñoom Mori ah, lu xew daana liggéey la rek dañuy liggéey gëm seen bop gëm ñi leen encadré loolu la rek démb da ma ñaari combat yëpp da ngeen koy daan non parce que dama xam booy yi la ñu liggéey te ñoo dàq bëre tey ñii dañu leen di napp rek ci xaabar xaabar mais ki nga xam ne dafa jàng bëre yore original bëre bokkul ak koo xam ne da ngay forcé ki doon bëre ak yëg sil xam na ne mbër bu ndaw la dafa am confiance ma ne ko mbër bu ndaw nag bu neexlee daa neex a daan yaa doole mais da ngay réglé may ko ba mu dikk accident vitesse nga dajeeg moom fel ko dem wuli de bi muy bëreeg ambulance dama ko ne kii takk takk rek la wu ñu daan mais amul bëre yow da ngay koos ak moom combat bi ngeen wéri wëccatu bëre di nga gis erreur bi nga koy daane waaw non rey na neex na nan man jaaxal na ma yoo de matt laa ci xam. ñu matt matt yoo indi na siburu. waaw matt matt yoo day indi siburu buur. eh Siteu deux nu wan ginnaaw. moo yoo ngemb lu xonk li Siteu mu si ngeen jàkkaar lool aw yoo. ay Talla Ndiaye yoo Talla xam nga yoo. Babacar xam naa yoo koy. dégg naa bu la mattee nga siburu. dama la uti muscitaire nag. kon nañuy moytu yoo waaye mu sig mii daa bëgg a matt Siteu deux. ndax Siteu na ko nangu. Siteu kese mu sig daw na jël. Siteu dóor ko eh mu sig ak Siteu lu xew Siteu mbaa daanu woo daanu nga de Siteu mbaa daanu woo waaw way daanu na Talla Ndiaye mu sig matt ah Babacar. musique màtt na. ah Babacar nga ne. eh na. nga ne ma. Siteu doo màtt nañu ko. ah doy na waar. waay Siteu sibiru waay. ay waay. jox ko ay paracetamol. waay doy na waar. Eh. wax na <laughs> eh, jagaan bu rog énergie. seexu na. tuus. da yëngal ba mu yëngu nga ne. doomu mbër laa moo tax. doomu Père Ndiouga. war a leer. bu la neexee. waaw mooy loolu. doomi mbër jàngil bëri yàgg yàgg des na. seen waa ji tey est que pare na. non laay pare na fépp. pare na ci mentalement. lépp loo xalaat. laay pare na incha allah. Mor Yekini la. ziar di wax ci gars yi. dix combats dix victoires. dix combats dix victoires. ay caaxaan. nañu jël combats yi ñu bëre. bu fekkee li ñuy wax dëgg la. dégg nga. sa kenn yàqal. dafa jël benn siwo bu 5 litres sottee ko ko léegi. loolu la règlement bi tere. waaw waaw waaw nootul am nootul am. da koy loolu nag yaa si jàmm. waaw sant yàlla wér macha allah. waa Kër Sega. waa Kër tey noo dikkee. waaw ñëw rek ànd ak samay mbokk xam nga li ma la rek. ñëw si kattanu yàlla suñu borom bëree daam ñibbi ah. ñàkk na ne am dara. waaw loolu bu ko neexee wax ko mais ci kattanu yàlla borom man li daan ko ñibbi laay def. combat mën naa gaaw. lépp lu mu laaj rek pare naa lépp bu yeexee baax na bu liyee mooy pare naa pour lépp rek. gis nga ko yéen ñaan ko bu doole actuellement nii. rek lu ñu fànn kenn du ko jeex. Ah. lu ñu la laay wax taala. cirib ca cirib irab cirib ca waaw waaw loolu fa jeexal nan tey dama way naan bu yàlla ne waaw léppay changé tey moom laay dugg si waaw. mais laaj bi d'accord nee naa ko ñaar képp doole mu ne lu kenn du ko jeex. ah bu ñu doon sukkiwee kon lépp dina ne fàng te yàlla ko man. day gaaw barki borom tuwa làmb ju neex ngay gis tey. ñàkk jëriñ ndam maa la ko wax ba ba léegi waaye déglu ma baax. maa ngi lay dégg. waaw waaw waaw. mais Chef Pato ci loone maa ngi sant yàlla bu baax. wulli nga nag kaful tay kaful. ah. wulli nee na kaful de. man maay kaf. loolu de la wax. non est ce que man maay kaf. loolu la wax. est ce que man maay kaf. loo ko nar a def. loo ko nar a def. ci biir géew bi. Talla Ndiaye Tapha Tine ak Onde. Onde eh, waa Onde tourne di. waa Onde lu ko dal waa Onde moom teel naa ñam di waa teel ay waay Onde mi yéen fajar teel waay Onde teel a fajaru waay. Onde daa gaaw Babacar. ah Onde day arbitre waxagul sax mu fajaru. Onde rapide la rapide. rapidité vivacité Onde waaye freiné nañ ko de Tapha Tine na ko ràcc freiné. sa waay Baye Fall la moo tax. Onde ngay dóor Tapha di jàpp. Onde ngay dóor Tapha di ah, xalaat naa bu lii taxul de léegi jël am. téye ba dëgër na ondu ondu fi na yee njool la njool la ondu dafa njool ondu Doudou Baka Sarr dafa tin siñoor saa njàmbur saa njàmbur ci ñoom dongolo bi daan daan nañu ondu waaye Talla Ndiaye daan nañu ondu. daan nañ ñaar fukk. ondu daan nañu ko. ñaar fukk daan nañ ko saa na. ko. gisuma woon bi nañ la tem njool man juróom laay wër. waaw naa la doom day. prochaine journée bi kañ la. Ah, di waaj le ak Nandi Fall. Euh, tigre junior ak Requin ak combat préliminaire yu am solo yoo xamante ne dimanche war na leen ko indil fii waaw di leen wax daal ñu teel a ñëw rek. Iba Mar la war arène nationale. non stade Iba Mar fii koy defee. soq ndànd fa. waaw teel a rek lu ne xaj na ci mais xam naa ne moom ku teel a ñëw moom vraiment yërëm naa la. saama ngi. waaw teel a ñëw rek incha allah dinañ gis ambiance dinañ gis gumbe ndaw rabet ak surprise yoo xam ne le 21 avril comme na ma rek waaw ku ne xam ne production du yomb. maa la wax loolu jaajëf. Petit Lo gauche dans sa ngeen jàkkaar lool Petit Lo doomi Modou Lo Modou xarañ Lo doomam jaa ngi di bëre doom la ci Modou Lo ah Talla Ndiaye doomi Modou Lo. xanaa baaxul kon Modou Lo ñëw na. ah loo ci mën a dégg doomam jaa ngi bëre Petit Lo taw na jël eh Petit Lo mi lu dal Petit Lo loo nar xeex la ilaha illallah magi Modou Lo papam Petit Lo ak Dansé Petit Lo moyul Dansé naa tax ñu ngay xeex xeex ba tar na laa ilaaha waaye ñii ñu ne eh eh Petit Lo doomi Modou Lo eh doomi Modou Lo Petit Lo xool supporter yi waaye roog énergie waaye yee rek ki Modou doomi Modou Lo jë doomi Modou Lo jë xoolal supporteram yaa supporter am ya la ilaha illallah waaye Petit Lo def na fi Modou Lo loo bëre. waaw sant rek man mënu ma dañ maa dañ maa tee dañ maa dimbali ay mag ñooy bàyyi seen nit ndax man barke alxuraanu karim. mais jëli bi ko daan daara yi. dara man mënu ma dara damaa nekk gi réew ñu may jàngati ma tete saa dañ may tee naan man nii ngay def ak nii mënu ma dara billahi wala léegi foo jëm. waaw sant rek di sant waa Tëngéej bu baax ak waa Parcelles ak waa Fandène maa ngi sant ñëpp jàpp nañ ci combat bi di wax ñëpp nañ ñaan yegg si na. yaa ko Modou ku dàq bëre. man nee naa la maa ko dàq bëre. <laughs> kenn day dugg ci géew bi. fii moom du ñu koy doxal. dañoo xamul làmb nag. fii moom du ñoo koy doxal. gars yi seulement xam lii daa am règlement. taala tere nañu. tey gisuma seen mbokk yi de seen mbokk yi de. ci cumikaay ba nañu dem ñoom ñoom nañu dellu. tere nañu police taala. ah mais c'est pas la loolu taxul ñun ñun ñëw fi. dara nañu police ñuy dem fii ñun ñoo fi assuré dañuy dem. aaye nañu police yi. laa yi lay la laa fourneau. eh police yaa ngay mystique. dañuy dem billahi dañuy dem ñun duñu yàq lamb ñun duñu assuré fii depuis 2007 ba léegi ñëw fii duñu yàq dara fii. dañ koy daan ñibbi. waaye Talla Ndiaye Talla Ndiaye police tey loolu dama waaru tey police yi ñu tere géew bi ku daan tere ba ñu tere la. en tout cas doy na waar de. daa mel ni lamb am na règlement de. moo tax nag gars gars yi tey seetaan nañ de. xoolal bi poto la muy sotteekoo. lamb ju neex a ngi nii. xoolal bi poto. Babacar Issa xam ne tey ñi fi ñëw ñëpp ñee leen fi indi. xoolal wulli xoolal wulli waaye wulli wulli waat kookoo yàlla nee na too ngi sangu patoo ngay sangu xoolal wulli sa drapeau Cheikh Sarr et Aliou les deux grands animateurs du Sénégal de la radio Zik FM xale bii nag Alima bu bëri rëyul mais xel tax tey macha mu xalaat na xalaat Cheikh Sarr delloo leen dugub mais balaa maa sori werte werte yi ànd Sarr bii nga Alima werte. te bàyyi ma ñoom laaya ngi fi alxames ma ñoom ngi fi saal bi jëloon wax balaa ñoo joxe kàddu gi. jërëjëf di taw xanaa mbokki amateur rek tey bis nga xam ni jamaïcain moo ko def fan la ko ci mag ju baax gi nga xam ne mooy moo ko defoon heure bii daaw li ma naan promoteur yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. tey biir dem ba ñaar fii lañ ci kaw ma saala sa bis ma bëgg ma joxaat kon sa kanam mi ngi ci yow. defee nii jamaïcain yi a xale la mu ne yoon waaye bi nga xam ne moom nga tudd Cheikh Sarr ak Alima Ndione muy les deux animateurs du Sénégal nekk rajo ba nga xam mooy Zik FM ne Sen TV daal ne seen jiglaay Alima ci moom yomb na boo jigéen ju baax jigéen bu Alaaji Ibrahima dafa bàyyi ñaari mbëri rek dama wax ne coow laa ngi Talla Ndiaye Talla Ndiaye dimanche kenn du ko fàtte Talla Ndiaye Babacar boo gi bi kenn demul tey yee Talla Ndiaye lambi maa ngi wulli lañ doon xaar tey ak Big Pato combat bi neex na Big Pato kuku maa ko mujj wulli farisee ko mujj fan lañ ko daane woon. bi poto fii Iba Mar la ko kukuma daane. lañ ko wulli ndar lañu ko daane parisien ko daanoon. ca la doon waxee ne yàlla maa ngi julli. maa ngi woor. maa ngi saraxe. ngay seetaan. xale yu ndaw di ma daan. ma ne ko wulli yàlla mooy Karim. yàlla moom ñëpp waaye mu ngongu moom wulli. Ndiaye soxla wu may ree Talla Ndiaye. eh Talla ma Lamine ma ak yow ñoo ma àndoon dem Ndar. moo tax sama yaram daw na Lamine waa ndeysaan billaay wax nga dëgg Lamine Seck loolu neexoon na lool ndeysaan taala sawara lay siin taal buy tàkka ngoongu cey lamb lee indi lii ah lii ndax du cumukaayu sal bawal ñu ngay taal rek taala njaay yee lamb cey lool waaye wuli big pato deux joo waaw waaw defal yaa tay ba tay dolli ma beneen bi doxaate waatal waay ee bi ga ngi waay waa police waay AS police police ay wa ramas ee Talla Ndiaye pato ngay ñaan ee arbitre baa ngay ree yaa yey ree lii ku ko réewul da nga amul yu bañ Macha ngay wax ak ñoom mooy arbitre combat bi di yet lii règlement bi bëgg ak taxawal waaw lii day bañ lii règlement bëgg ko waaw waaw ku dem foofa yaa fa yóbbu sa bopp ci giw bi juróomi avertissement pato yaa ngi wax looy wax arbitre pare ah ci kawam la jëm taxawal eh da songu. day xeex ak moom la bi poto jël na wuli bi poto jël na ko door na ko door na ko dina ko daan ee wulee poto wulee poto laa ilaha illa la wulee poto ee Talla Ndiaye xeex bëre. Babacar lii neex na te paton ko naan kaay paton ko naan kaay kaay kaay bul ne bul dem wuleen te sa em wule loolu foofu pato ne na ko doon naan wule ngay naan wule ngay wule ngay laaj ndox wule ak jon wule ak jon laa yi lay la laa tànk wuli bi wuli am na ñetti avertissement li doy waar tey mu dóor Pato dóor mu daanu dóor mu daanu sol na ko Pato naax na ko Pato naax na ko eh bii combat du yomb bii combat mën ta yomb koy rokos rokos Pato ay waay leet na Ari Cissé maa ngi mbërëm police mi ak mbërëm Aziz Ndiaye mi ñu ngay ñam Pato eh mbot daan nañ wulli daan na ko quatre appuis bato wulli daan na yàlla ñëw na waaye yàlla ñëw na ee eh, wulli daa wulli daa son yàlla na wulli yàlla ñëw na wullee ngay julli bana joon na nga koy sotti ndox mi wulli yàlla ñëw na wulli yàlla ñëw wulli yàlla ñëw wulli yàlla ñëw alhamdulilah yàlla wulli yàlla ñëw na alhamdulilah yàlla wulli yàlla ñëw alhamdulilah Sénégal gépp dama ñaanal wala neexut neex na lool combat bi tey barke Seydina Mohamed même boobu ku mën a am tey dama lay daan yaa ngi doog moo des tey xoolal kii Lamine daa jóge Gambia bi laa gir man booy bi am na am na problème. ban problème la. du ma mën a moom. yow eh, eh, eh wuli mbër. waaw d'accord mbër la. Aziz Ndiaye yow la yomb. Aziz sa ko yor Aziz sa ah, nami. Balla Gaye suma rakk la. Balla ak Aziz sa ko yor. Balla oh, Balla suma rakk la. te booy bi. su moo xam naa ko. mais Balla wuli la far. kan wax ko. Balla dinaa bëre yaa. foo yow wuyu ma wuyu ma fan la alkaati maa indi fayul. fan la ngeen boo alkaati fi mu ngeen xam naa ko. fan la fi mu ngeen boo xam naa ko. fan la ngeen boo. doo ma ko du ma la ko wax. di ma ko maa ko fay jiitu wax ma ko. te arsiwul wax ma ko. baa ngi soufflé. Zal boo rubus la jógee jàpp ñaay cokkeer bu la neexee dem ba bawal ak yaay mbomboy ndondol ba tàlleñ ee gaat njamaan dëkk yooyu la Zal Baol waaye di brise de mer caaroy am na caaroy sur mer fa la jógee am na caaroy gaar Cerno Njaay caaroy kaw Zal Baol feet Zal boo xoolee moo gën a njool mu ngay dox ak moom wàcc na Zal wàcc na laaw gauche laaw droite Saal Bawol Brise de Mer ñu ngi ca ruq ba wàcc nañu ndeysaan ñu ngay xoolante Brise de Mer a gën a doori na gauche Saal fayook droite bu ñu bu ñu dajee xalaat naa ñu bëree Brise de Mer daa bëgg a xeex moom Saal daw na jëli ko jàpp lay wër wala lan Saal ak Brise de Mer faw ñu bëree yee Zal Baol Brise de Mer Zal Baol Brise de Mer lu mu ko bëgg a def maap mu bañ loolu ndax sori wulam Zal laa ilaha illallah wala jàpp lay wër loolu sori na de mu ngay ñam moom Brise de Mer ca faar ya Zal Baol Brise de Mer ñu ngi ca côté saaku ya la ilaha illallah sal brise sa mer mu bëgg a def ba sori na ñu ngay ñamante brise ngay ñam eh dal na ko Talla Ndiaye yëkkati duur ci suuf sal ngi nii sal ngi nii Talla Ndiaye eh xoolal ma xale bi day ma pat bu la Talla day bëre day bëre ànd ak suma ay mbokk ànd ak samay gëstu samay garaay fi nekk ñu ma conseillé rek laa bëree man damaa bokk ci lamb Babacar booy du ma seen morom di gërëm na sama gars yi jàpp ci combat yoo bëri. balaa ngay remercier damaa gis ngeen jàppante nga daw yóotu ko pour jëm ko plaqué ñaari yoon lu tax loolu. parce que man xam naa ne bu ñu dawee daje contact li muy bëree ak li may boo ko man li may bëree arrangé wu ko jël naa coup boo gisee ma jël coup bi mooy dama ko bëgg a jàpp jël bu metti ma jël coup bi jàpp ko bëre moom parce bu ñu contacté rek. bu ñu contacté du ma moromam di sant dafa am benn affaire dafa am ay mbër yu nekk écrit bi mu nekk di ko jàppale ay mbër yu mag bilaay walaay laa nañ ma may sama chance ay kilifa ñoo ma ñaanal ay kilifa. yan yan mbër nga bëgg ko bëree mooy fermé ko dox ci kawam mu déclenché ma déclenché ma daw jàpp ko bëri moom daal su ma jëm mooy samay ay morom nañu nañ ma jël bëri ma. comme ñan. non ñu ci kaw. rawuñu ma looy wax looy wax waa Rëbës ak waa Bawal. waa kontaan ci waa waaw waa na Niassène. waaw njabootu maam Cheikh na Cheikh Sadbou. waaw waa Tiwaawoon ak sama grand yi nga xam dañoo ne ci koñ bi bëgg ma loolu jàppale ma. ku ci mel ni ñoom Mbaye Pouy Omar Ndiaye tey amul lu ñu deful ngir man yàlla ma ak yaay ñoom gars yi ma jàppale ba Babacar. Laye Pythagore à droite ñaq jariñu à gauche drapeau Aïda Mbodj waa Laye Pythagore ñaq jariñu drapeau Aïda Mbodj ñaq ngay ñaan eh bu leen jaawale lii tey la dimanche 14 avril 2019 ñaq jariñu à gauche Laye Pythagore may bañ ko jaawale deuxième gara wala bokk lii mooy grand combat bi wala ñaari grand combat bii moo ci desoon ñaq ak laay laay ak ñaq cay ñaq borom caaro yi laay borom parcelle kër seega eh kër seega bayax alu soufflé na ñaq jëriñu fausse garde féete gauche laay Pythagore fausse garde féete ngemb bu weex laay ngemb Lagos ñaq ñu ngay lewaatoo suul naka nga koy xool ca kaw laay laay bras droit Modou Lo eh sa mbër maa ngi di bëre waaye ñàkk doomi caaroy cey ji lamb laay marle ko mujj a daan ñàkk doomu dango ko a daan laay xeex na laay ñu ngay xeex ñàkk ak eh, lu xew ñàkk daanu kaat ab wala lan lu xew lu xew laay laay ak ñàkk kaat ab amul. toppal ma taala lu xew ku nekk nay réclamé de lu xew lu xew ñàkk daan na ko ñàkk daan na laay ñàkk daan na laay waaw dugub ba baaxul taala njaay kat appi la def kat appi da dugal mu def kat appi dafa rëpp def waaw mbaru Modou Lo ma. ndeysaan daan na ko. doomu Kër Seega bi. waaw am na doomu Caaroy bi daan na ko. leer na dafa xeex ak moom. Ah. ñàkk répondeur ko. mu daw di ko jëli ñàkk dugal ko mu def. at appui dafa rëpp avant muy laali ñàkk. boobu daanu na ba pare la. loolu loolu dafa rëpp. oh ñàkk jariñu. Talla Ndiaye. Talla tey la maa xam nga ne tey la woon 14 avril. Talla Ndiaye bul fàtte. ñàkk jariñu laay Pythagore laay li ko dal daa mel ni na ko. quatre appui la def wala boog loolu la ñu gis ñun loo ci mën a dégg daal ñàkk daan na waaye Saal Bawol itam daan na Brise de Mer da koo daan ko Big Pato wulee ko daan ak combat yi ca des waaye am na benn xale nañ ko bàyyi xel Petit Lo bu roog énergie doomi Modou Lo la góor a sogo ngoongu may romb waaye loo ci mën a dégg daal lii moo fi amoon tey caaroy daan na parcelle loolu la ñàkk def taala muy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye kenn du mbay guy gi xool fi mu génn ak man ci noir blanc mbay guy gi bëgg naa la gis nga li ma solal ci Nike mbay guy gee ko def taala ku ko def ñu wax ko moo ko def kon mbay guy gi tey demb seex la woon tey mbay guy gi la taala Njaay ba ba fan yii taala ba fan yii